jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte nuñ koy defee saa su ne ñu ngi fii ci Parcelles Assainies open press benn xale boo xamante ni révélation la ci lamb muy Tapha Mbeur mu war a bëreeg Alioune Seye Junior yi tey ñu ñëw démb dégtal nañ leen open press Alioune Seye Junior Tapha Mbeur gi noonu sëñ Bass dañ leen koy wan xool ni mu ñëwee ci lamb ji ngeen xool ni muy dugg see ak ay mbokkam ak ay fan si club ci open press Tapha Mbeur sëñ Bass kaay jël Tapha Mbeur. ko jur jigéen sañul ko ne maat man dana mu naa la ee ay daam te fondu sama ko sajin saji walin maar aley aley ale ale ale ñëw naa mbokkum yaay bay ma jaaga faati ngone mbokkum yaay moo du xarañ loo yi Sène maa ngi lay nuyu. waa Diir maa ngi lay déglu wër de ziar. daam tay ñu fekk la ci open press Tapha Mbeur loo yëg. waaw Tapha moom maa ngi moom bii ñaar sax bi ma wax ko kenn lañu parce que man mooy maa maay Tapha daa may Tapha di nga ñaanal bu dee ndam liggéey mooy tax am na ndam combat bi incha allah rabi amul leneen lu ma jaral lépp war a liggéey liggéey na ko muy contact box escouade lépp lu liggéey musculation bàyyiwul dara yéen ñu dund di nga ñaanal su dafa ko ndam ndam lu xam nga ki muy bëree Alioune Seye Junior xam naa ko bu baax amul na ma ko ciy moytuloo avantage bi lépp ci Modou Lô pay muy xeex moo ëpp moo ëpp doole moo dàq bëre amul lenn lu ma koy moytoo Alioune Seye def li ma war dem nii nii bi foo ci lamb man maa ngi nii wax mais eh, ñoo war a bëree bu ñu yoon démarché rek ma bëre ñoom mais ñi ma démarché ñaan kon ñaan dama ak ñoom Wouly 2 amul combat dañ ma ko jox Wouly 2 men armée mi ngi fi nekk amul combat dañ ma ko jox gars yi ma amat ñoom dara. promoteurs yi ñu ngi lay contacter. waaw tey rek ñu ngi ñu ngi may contacter. mais combat yi may wax yooyu du samay combat. Hmm. waaw jaajëf jaajëf. feej daa dégg rek dafa am fekk Papa Sow ci open press euh, ki nga mooy Tafa Mbër Papa ñoo lay nuyu. waaw ñu ngi fay sa waay. Euh, ñu fekk la ci open press Tafa Mbër. dafa mel ni parcelle benn bopp la kenn mënu koo xam. waaw ah, loolu ya loolu loolu yàgg na si parcelle Tafa Mbër suñu rakk la. kon Tafa Mbër ak sama koñ tout la ba nga egg. Tafa Mbër bu xawlee te yàlla may jot rek danañ ñëw assister ko. waaw. sa combat yaag euh, ki nga xamante ne mooy Siteu. adduna bi yëpp waxtaan na nañu taxaw na noo koy préparé. waa ñuy waaj nànk-nànk rek ñuy waaj nànk-nànk waaj comme na Papa saw ñu xamoon Papa Sow gaynde am ci lu mu jugee. comme d'habitude rek comme d'habitude rek. waaw ñu ngi liggéey di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si jàmm te may ñu ndam incha allah. sa combat yaag si euh, yaag euh, ki nga xamante ne mooy Siteu séntu nañ ci xeex. waaw mais combat nga jëm lépp ngay préparé da ngay préparé tout loo fekk nag nga xam ne mooy loolu ko vrai Papa Sow bi ñu doon gis ci xadar ci jàmbaar ci xeex ci fit dinañ ko gis. incha allah waaw moo lay jox Papa Sow is mais mënuñoo waxtaan te waxtaanuñu li nga xamante ne mooy actualité Papa Sow jugee na Fass. loolu loolu actualité. aw ah. ma ci benn wax bu ma ci wax. waaw. jaajëf Papa. bàyyi ma kenn plus particulièrement Dame Sène ngeen gis daf ma taxaw daf may jàppale dafay sonn si man di nuyu ñëpp képp ngeen fi fekk. nga jëm si combat dimanche ki ngay bëreel muy Alioune Seye Junior yàlla def daaw mu bëre mu moom mujj combat am dafa ñàkkoon yow tam mu bàll mu la mujj daan ngay si làmb Tapha Mbeur actuellement combat boobu ban taxawaay la ci war am dimanche ak fu mu ci toll. waa damay sant yàlla rek li ma ci war xam naa ko jarul wax ju bari liggéey moo ma ci war ak ñëw wane preuve moo tax maa ngi si kawam di ànd ak samay grand frère ak samay mbokki mbër waa parcelle ñëpp jàppale ma ku lu mbër fii parcelle yaa suma ginnaaw yaa ngi may taxaw yaa may jàppale kon ma li si des mooy lan ma ñëw wane fulla ak fayda bis ba yàlla may man dam ma ñibbi. Uh-huh. waaw Tapha tey mën tey euh, Mame Balla moo def mbër. ngay war a bëri ki may Alioune Seye junior muy muy mbërëntaan comme yow tey nga jóge si defet waa parcelle yëpp ngay dégg lu ne mais tey làmb jii la nga si waaj say mbokk say àndandoo say supporter ak boobaa loo indil waa waa waa parcelle waa làmb ji su ma la waxee dëgg rek waaj bu méttee méttee méttee la si waaj xëy na di bëri di daan di daan ama woo defet dafa xëy na defet mooy def mbër nit mais Alioune Seye bu jàkkaarloo ba pare dina xam ne Tapha Mbeur mi beneen Tapha Mbeur moo fi nekk li si war yëpp maa ngi koy def mhm. aw ma lu may calculer si moom man li ma koy sant mooy ñëwal stade waxuma ko dëggalal sa bopp waxuma ko leneen leneen laa ko sant mooy na ñëw biir stade leneen lu si def sant ma ko ko li fa am man maa koy def. waaw nee na moom nee na moom ak lu mën am day am ndam. ndam yàlla moo ko yor mais man sant naa yàlla bu baax. kooku du man ak moom xëy na si li ma jugee sax moomu booleeg moom. mais làmb boolewuñu dara boolewuñu. làmb mooy jaxase ay mbër. moo tax ñu bëri ak ci li ma jugee. mais su ma paree ci moom dina xam ne du man ak moom. te te te combat ma toll sori na trop te bu ma arbitre sifflé man ak moom dina xam fan la ma laam mi ngi wax lu ne Tapha Mbeur naw ma ko si bëri naw ma ci xeex xëy na loolu dañoo jàkkaarloo mais góor balaa nga ñam ko. ok yàlla baax na. Tapha maa leen siyaar bu baax a baax. lay màggal. Alioune Sèye Junior démb dañ ko seeti koñam moom mu ne yéen waa parcelle xam ngeen kan mooy Alioune Junior bébé Modou Lo jaar na fi brise de mer na fi na Modou nekk sa ginnaaw keneen keneen nekk sa ginnaaw moo si yem. nee na jour ba yow boo taxawee dëggal sa bopp dina xam ne yow yow taxaw koo jóg. waaw loolu li ma siy wax du bëri moom Modou du moromam mooloo Lo bi muy wax moo indi diw ak moo indi diw du moom moom man ak moom la moo Tapha Mbeur la su paree ci Tapha Mbeur dina tal leneen lu dul ay Modou indi na diw ak diw ak diw yàlla baax nañu yàlla may tal ak fekkee wér ak wér la incha ba bés ba. benn question laa dese. benn moom nee na bi moom du nee na waaye lu manti am moom mooy am ndaw mais combat bi du gaaw mais lu manti am daal moom mooy am ndaw waaye du day nguus gars rek mais yàlla baax na ba bis ba man lan laa koy xamal dama sangu rek mais nelaw ma maanaam di jéem a wax combat bi day gaaw di gaaw moom li muy pare sax xam naa ko li muy prévoir koñam sax maa ko fopp nit pour mu leer bum ñu jéem a gëlëmal. na bis ba rek yàlla baax na du ci wax stratégie boobu bosam la sama bosam ma koy nëbb. gis nañu mu fonk combat lool wax jii nga wax waxoon nga ko ci Mame bala Cissé na ko fi nga dëkk ba seen biir kër te nga waxaat ko Alioune Seye est que xam nga combat bi lan la la mën a may soo ko amee ndam ak lan la la mën a xañ soo ko ñàkkee. bu baax a baax a baax moo tax ma fonk ko maanaam ku ma ci wax loolu dafa nekk dëgg man booy banlieue la si banlieue bi laa juddoo ba tool nii ma toll aw ma benn sens interdit dëkkuwaayu kenn. fu ne heure bu ma neex laa fay dugg su ma nekkoon sa koñ maa ngi fa ëpp ni dama am fu ma ko teg mais damay sant yàlla di ñaan yàlla suñu borom yàlla ma yàlla may ndam lu sedd guy. man li ma lay laaj dafa mbër dañu gis keroog dimanche bële wala mercredi comme tey dafa gay de Abou Niasse jël ko muy xale ak mag mu mel ni Abou Niasse am na ndam mais ndam la na mu ko amee neexu ko am ñu xam ne ñoo xam ne sax nee nañ moom est ce que xale yi waruñoo bëri seen biir parce que am na ñoo xam ne dañuy wax naan Tapha Mbeur dafa bëgg lu yow. man damay sant yàlla xale laa te daa am loo ko bëgg daa am loo xam ko war a jël dem sama yoon nekkuma fi di jiir yaara làmb la nag Aliou Sow wax na ko si biir waxam moom du mag Aliou Sow bu nekkee mag kon ñun ñëpp nañ bàyyi bëre. maa man mag mag ma yomb na moom moo mag sama magu papa sax kon man mag ma yomb na. Ah. man mag ma yomb na xëy na damaa teel a bëre. bëreeg Tapha Mbeur force xale ngay bëreel pour Tapha Mbeur bëreeg ma ku mu tollal aas dina jafe torop parce que boo wane say preuve làmb noonu la. Balla Gaye lu ñu wax na bëre booy Niang est-ce que foofu ma dafa am ñoom ñëpp ay jeunes lañ mais magante day am si làmb yàlla nañu yàlla may talak fekkee mais stratégie bi Tapha Gueye de indi woon kera bu la ko maanaam bu Alioune Sèye Junior ñëwee def lool da ngay jàpp da nga koy tabi jàpp ko wala après man daal li may pare du ma ko wax mais moom nee na góor la garmi la doomu baaliye la maanaam sañul def li Tapha Gueye de def du ma ko wax dara ay boo defee lii lii laay def bu taxawee dëggal boppam ñu bëre su dawee duma ci xam dara duma ci wax lu bari parce que làmb duma dem ne ko lii laay def mais en tout cas. li may pare pare naa ko. rafet loo wax. waaw. pël nee na ndax combat bi day gaaw wala day yeex ndax du risque ci yow ndax yéen ñaar da ngeen a jóge ci defet moom xale daan ko yow mag daan la nga ñëw jëlaat non lamb ji man du risque si man parce que man dama tarbiyu lamb dama jaar si lu ne lamb ji day gaaw am day yéex ça dépasse Alioune Sèye du ma ne ko day gaaw du ma ne ko day yéex mais na ko leer ni pare naa lépp. Ah, côté mobilisation. nga am nga ba tax nga daanu. mais loolu ak si yaa ngi koy bàyyi xel. loolu mooy leçon bi loolu tuddee ma ko sax erreur mais leçon laa ko tuddee te jàpp naa ne bu incha allah bu bis ba xam ne leçon su la. incha allah mobilisation bi foo ciy toll parce que nee na moom dimanche bés ba moom moo la koy yóbbul foo ciy toll. non moom ñoo ci mën fuuf ñun parcelle ñoo ci mën fuuf su bis ba bu teelul ñëw du dugg pare nañ ci côté yëpp. léegi looy tàggoo. li may tàggoo mooy di woowaat samay supporters ndax làmb ji ñoom laa koy bëreel. samay supporter ak waa parcelle ñoom pare nañ ci côté yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi woo waa Thiaroy waa Malika waa Kër Massar waa parcelle bii ma dëkk Cambérène Grand Médine fépp fu kuy bëggee Tapha nekk waa Seras waa Mbaaru Sëñ Fallu bi maa ngi woo Mbaaru Sëñ Fallu yëpp ñoom Calaaw ñoom xam nga Beto Nees Aada Ganna baa yu bàyyiwuma kenn Seras képp ko fa nekk maa lay woo si combat bi maa ngi woo waa parcelle yëpp 1 ba 26 di leen wax nag bés bi sama bés la waaw maa ngi woo waa bu bëgg Fallou maa ngi koy bu baax maa ngi woo André Senghor maa ngi woo Ahmed Poro maa ngi woo képp ku may jàppale professionnel yi nekk parcelle ñoom euh, Daoudo Mbow Cheikhou Kouyaté euh, Habib mi ngi maa ngi koy woo maa ngi woo Pape Ndiaye. maa ngi woo képp kuy professionnel nekk parcelle combat bi sunu combat la te buñ paree moom dina xam ni dañoo soxla ba dimanche bu soobee yàlla merci beaucoup